xamante ni dafa am loo xam te bokk na ko ak réew bu Sénégal ci relation mu nekk ci wàllum politique ci wàllum diplomatie ci wàllum économie te poñ yooyu noonu mooy li nga xam te mën nañ fa natt tey ji souveraineté réew bi nga xam ni suñu njiitu réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi fay dem li nga xam te moo naroon nekk njat natt bu njëkk ji damay bëgg a def foofu rek benn analyse sémiologique bi nga xam te moo nekk tey euh, taxawaayu njiitu réew bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu jógee Sénégal kan la ñu gis ni mooy dem euh, France jiitu réew bu Sénégal ñu xool ana nan la mel bi mu nga xamante ni mu génn Sénégal mu ngi ànd ak soxnaam sol yére yoo xamante ni ñu ngi ko defaree ci biir Sénégal takk montre boo xamante ni ko Jibril waxee ñu ngi ko defaree Sénégal. soxnaan sol yére yoo xam te ñu ngi ko defaree Sénégal yor saak boo xam te ñu ko defaree Sénégal daal yéen naka noonu te ñuy nekk ay njiit yoo xamante ne dañu ne dañu bëgg Sénégal nekk réew boo xamante ni dootul jéggaani dara lépp loo xam dañ koy jëfandikoo ñu koy euh, defaree ci biir réew bi xëy na li ñuy lekk am na ci loo xamante ni mën na xaar mënuñu ko def jooni jooni loolu processus la mais am na yeneen mbir yoo xamante ne nag mënul xaar mënees na ko tàmbali léegi-léegi mooy li nga xamante col gi la ndax am nañ ay nit yoo xamante mën xereñ nañu defal ñu loo xam xamante ko sol bu mën a concurrencer képp koo mën a gis donc mu nekk premier acte boo xamante ni euh, def nañ ko posé nañ ko mu ci wàllum souveraineté mooy wane ni xam te ay doomu sénégale lañ di liggéey mu nekk ay téye mu nekk ñoo xam te dañu yëngatu yeneen fànn la ñuy liggéey doy nañu te tamit amuñu complexe sol li nga xam te ñoom ñu ngi koy def donc c'est un premier pas vers la souveraineté bi nga xam te ñoom nañu ko parce que ñu ngi jëm ci tugal caméra yi ci àdduna yëpp ñu nar a braqué wu ci ñoom ñu wane li nga xam te nag mooy seen fierté wane Sénégal lii ñu sol nii nii ñu mel nii lépp Sénégal la amul leen loo xam te ni jéggaani nañu ko donc mu nekk poñ bu njëkk boo xamante ni euh, wane nañu ko teg ko mu nekk un pas vers la souveraineté beneen bi tamit mooy. li nga xamante ni tey dañ leen fay natt euh, ci wàllum souveraineté bu ñu koy wax xëy na ñu bëri dañuy seen xel dina dem ci bu ñu ne tey Sénégal dootul nekk dëkk boo xam ni dañu koy noonu Sénégal dafay nekk dëkk bu indépendant te néocolonialisme dañ ko fiy jëlee ak yooyu doon ñu ci bëri dafay dem ci ay ci demee ni dañ naan ah réew la boo xamante ni de euh, mu ne déclaration universelle des droits de l'homme daf ne pays bu ci nekk da nga war a disposer de même warul dépendre ci beneen dëkk ci côté kaaraange ak yooyu noonu kon armée française bi nga xamante moo nekk biir Sénégal lan la fiy def ñeneen ñuy souveraineté bu ñu ko waxee tamit suñu xel dina dem ci souveraineté économique franc CFA bi nga xam ci moom la ñuy jëfandikoo ñu ko defaree ci France kon lan moo ci war a nekk gis-gisu autorité yi nga xam ci ñoom la ñu nekkal loolu yëpp nekk ay points yoo xamante ni avant ñu egsi ci nguur gi ñu ngi ñu ci doon wax.

la yàlla wan leen ni nag moom moo mu yor nguur te moo koy maye ñii nii seen xalaat ci question yi nga xam ne dañ ko tuddee question sensible ngeen ànd ci ak ngeen ñàkk ci ànd dañ leen jox nguur gi ba ñu agsi fa nga xam te foofu la ñu war a nekk président Bassirou Diomaye Diakhar Faye agsi France euh, le grand Djibril wax na ci sànq noonu li nga xam te moom moo nekk euh, premier contact am ak le président euh, le président Macron parce que wane ni complexe de supériorité et d' infériorité bi nga xamante amoon na ci diggante sénégalais yi ak euh, ci suñu dirigeant sénégalais ak euh, les dirigeants français Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa ñëw daf ko dindi ni ko dindee mooy lan nangu na représenter fièrement l' Afrique boo ko gisee mu ñëw da nga xam ne c'est un africain moo ñëw moo taxaw nii beneen bi ñëw mooy ni ko ni ko Jibril waxee kanam gu serein la yor nekkul koo xamante ni dafa gis nit ko xamati ni gëmewu ko woon wala koo xamante ni dafa jàpp ni kii kat euh, supérieur am la wala yoonam sérénité bi nga xamante moom la ñu tàmm di ko gis ci moom changer wul dafa def focus comme focus bi ñu doon wone moom la ñu gis ci kanamam mu nuyu ko jox ko loxo seere loxo mu dëgër. le président Macron jël beneen loxoom teg ci kaw loxo maanaam jàppe ko ñaari loxo buy wane nii tey euh, mu am na gan goo xam ne gan gu mu fonk la gan gu mu respecté la donc le respect euh, xëy na gisuñ ko ci kanamu Bassirou Diomaye Diakhar fay sax mais le président Emmanuel Macron def ko gën a dëggal gën ko fësal ci li nga xam te noonu la ko nuyoo mu mel ni kon dafay wane ni carrément li nga xam te moom moo ñëw ci moom tey jii nii lu mu fonk la jéem a rattrapé wu à un moment donné jéem a taxaw taxawu patron mooy bi muy jël loxo bi di ko dugal ci biir poche wane ni moom c'est le patron ak yooyu noonu mais bi muy jéem a ci beneen marché bi comme ni ko le président Djibril waxee sànq ni loolu feeñul parce que yàlla daf ko may moom le président Diomaye mu nekk koo xam ne dafa am taxawaay kon même non donc mu nekk ay gestes yoo xamante ne du wax du jëf ay gestes la yu ndaw yoo xamante ni sa signifie beaucoup ci li nga xam te moom moo nekk taxawaayu le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci ndaje bi nga xam te am na ko ak le président Macron. donc côté souveraineté boobu na nga xam ne ñu koy wax foofu moo waroon a nekk ni premier pas beneen bi nag bi am mooy Afrique dafa am ndam Sénégal dafa am ndam parce que le président Emmanuel Macron ci boppam mu reconnaître que ni dañu war a démarrer sur de nouvelles bases. ci coopération yi nga xam te moo am diggante la France ak le Sénégal du kàddu yoo xamante ni euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye rek moom moo ko wax mais le président Emmanuel Macron moom moo ko cela veut dire quoi mooy que ni reconnaître na que ni relation bi nga xamante amoon na ci diggante France ak Sénégal du woon ay relation yu baax du woon ay relation yoo xamante ni c'était équitable jokkalante gi na nga xam ci noonu la doon amee noonu la war a dem moom reconnaître na ko te reconnaître na yi tamit nii ñëw njiitu réew bu Sénégal foofu ci France dafa war a nekk jéego bu njëkk ngir ñu tabaxaat li nga xam te ni moom moo nekk jokkalante diggante réew bu Sénégal ak réew bu France loolu mu nekk ndam boo xamante ni ndam bu rëy rëy la jano bi yàggut nekkul euh, rencontre boo xamante ni mën nañ jàpp ni ça a duré des des heures et des heures mais li nga xam te ni tukkee na so mën nañ ni defar na ay bu yoo xamante ni ay c'est des années de diplomatie yoo xamante ni ay nguur xamante ni succédé wu nañ ci bopp Sénégal taxaw nañ ko fi yàq ko fi benn janoo boobu nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko ak le président français defar na ci lu bëree bëree bëri en terme d'image en terme de diplomatie mais en terme de perspective li nga xamante ni moom mooy ëllëgu Sénégal ak France ci li nga xamante ni moom moo gi te ci demee ni armée française bi nga xamante ne mu ngi ci Sénégal xam nga le 3 avril bi ñu suba le 4 avril le président Abdoulaye Wade bi def discours te base militaire français yi nga xam te ñoom ñoo nekk ci Dakar parce que dañu soxla suuf si dañu soxla base yooyu noonu li mu doon wundu rek mooy armée française nu ñu delluwaat seen réew ñu nekk ci projet boobu noonu ba 2012 le président Macky Sall ñëw daal di gàntal li nga xam te moom moo nekk mébétu président Abdoulaye Wade gën a renforcer waat li xam te moom moo nekk kon présence militaire bu française euh, présence militaire française à nga xam te nekk seen i base ko dëgëraat mu mel ni donc Abdoulaye Wade dafa def un pas en avant président trois pas en arrière donc éliminer waat li xam te moom moo nekkoon noonu parce que tey réew mënoo ni da nga bëgg a moom sa bopp te sa kaaraange mënuloo ko gérer sa bopp beneen armée bu nekk sa biir réew. Mhm. nekk une armée indépendante boo xam si du dox ci sa waawi armée bopp yow du dox ci waawi ñi xam ci ñoom ñoo nekk seen autorité yi yëngatu ci wàllum sécurité ñun à tout moment. Euh, mën nañ jëf jiyee ci sa biir réew parce que nekk nañ di armée yoo xam te armée yu xereñ la gis nañ fii le président Macky Sall mu di ko mu di leen gërëm mu mu ne seen armée boo xam ne en Europe bokk na ci armée yi gën a performant di leen tàgg alors que ñun Afrique soxlaatuñu lool nekkatuñu dans les années ay soixante avant les années soixante xam te ni dañu nekkoon ci benn régime colonialiste boo xam te moom moo fi nekkoon donc nous des états dañuy nem fexe ba lépp loo xam te ñu ngi ko war a am ci côté sécurité ñu mën ko doxalal suñu bopp donc loolu nga xam te waxoon na ko ah, communication dafa nekkoon communication boo xam ne nag à chaque fois dafa doon jéem a neexal nga xam moo nekk euh, le président euh, boo demee ci ginnaaw gis nañ fi sax ba muy wax naan France ak Sénégal seen diggante dafa a tax parce que même bi ñuy dem ci guerre mondiale yi euh, les les tirailleurs sénégalais dañ leen doon jox dessert donc j'ai pas besoin de dire ni même les tirailleurs sénégalais nekkuñu ay sénégalais kese alors que même bu ñu leen doon jox dese sax même bu doon dëgg sax c'était pour ñu dem jaay seen bakkan pour défendre la France donc nekkul loo xamante dañ a a remercier la France donc mu dañu ko yàgg am mu nekk un retard le plan diplomatique waaye tamit sur le plan tey jii de la souveraineté bi nga xam ci moom la ñuy waxtaane le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëw def geste bu njëkk boobu noonu Mhm. Ah, ñu bëri tamit dañu jàpp ni euh, am na sax ñu doon conseillé tey ji les autorités ñu ne nañ moytu di tukki nañ moytu di def lii di def lii parce que nguur ñoom naam jël nañ nguur gi sax mais ñi nga xam te ñoom ñoo leen di xoqatal wala ñoom ñoo bëggul ñu nekk à la tête d'un état africain duñu leen ci bàyyi noonu mais ce geste posé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en France tey jii nii wane na ni tey ñi nga xam te ñoom ñooy abdiqué moom mooy waa France ñoom ñooy abdiqué ñoom ñooy delluwaat ginnaaw ci nga xam te noonu la ñuy jokkalante ak Afrique parce que suñu relation diggante France ak Sénégal ñëpp lu ñu mën a perte ci relation yo noonu mooy France lépp loo xamante ni France mu ngi koy jëriñ Sénégal Sénégal loo ko jëlee ba pare delloowaat ko. te suñu relation kon moom la gën a ñoom ñoo ci gën a am intérêt que ñun Sénégal donc dañuy wax nag ndokk ndokk ba ñu amee ay autorités yoo xamante ne nii discours bi nga xam te moom la ñu doon tenir avant ñu egsi au pouvoir ko jëmmal ci seen i jéego ngi koy jëmmal ci seen i kàddu ñu koy jëmmal ci nga xam te noonu la ñuy doxee le franc CFA aussi bu ñu wax ci souveraineté aussi mënul nekk euh, question boo xamante ni dañu koy esquiver. Mm-hmm. bëri ñu nekk mënul génn euh, ci français fa noonu parce que dafa laaj processus waaye tamit dafa laaj nga teg ay jéego yoo xamante ni dina tax sa réew bu dugg ci ndëgg sarax am ñuy évoqué cas de la Guinée Conakry ci problème yi xam te am nañ ko ci wàllum économique yooyu noonu mais ak nu mu mën di demee réew bi nga xamante ni moo yor sa koom réew bi nga xamante ni mooy defar xaalis bi ngay jëfandikoo kooku man bés bu la bëggee indil ay jafe-jafe daf la koy indil parce que France bu jékkee jékki woon tey jii mu décidé créer ay créé ci lu bëri bëri bëri dugal ko biir Sénégal ak lu ñu xereñ xereñ xereñ xereñ dina am loo xamante ni dina circuler te bu boobaa dina plombé suñu économie. Mm-hmm. naam am nañu ay système de sécurité yoo xam te ñu ngi koy teg lépp mu ngi mu ngi jaar yoon mais bu ñu jógee tey ñu bëgg ñu attaqué ci côté boobu noonu mën nañ ñu ci sonal. Mm-hmm. donc tey war nañu teg suñu autorité war nañu teg un processus boo xamante ne ni dina tax tey. même bu ñu changé wul franc CFA garder le franc CFA mais ñu fexe ba franc CFA boobu noonu ñu koy defaree en Afrique di ko defaree tey dans un des pays africains yi xam ñoom ñoo koy utiliser mais pas ñu koy defaree fi nga xam te moom moo di France France waratu ci am dara waratu ci am pourcentage waratuñu ko defaree France waratu nekk euh, dëkk boo xam dafay contrôler suñu monnaie ni nga xam te noonu lañ koy jëfandikoo. beneen acte bi nga xam ci ni aussi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye posé na ko aussi muy wone carrément euh, que ni ñu ngi dem ci beneen air aussi mooy comme ni ko Jibril waxee aussi mu ne bu ñu suñu njiitu réew yi daan jóge Sénégal di dem Europe dañ daan logé ci ay hôtel cinq étoiles ñi mm-hmm. nga xam te ni moom moo fa doon bàyyi ci ay koppar ñu ko fay bàyyi kenn xamul nu mu toll parce que seen i délégation rek ay délégation yu am am am doole la maa ngi seetaan euh, keroog euh, maxu ci benn émission bi man sur euh, Dakar 221 mu ngi expliqué que ni ñoom dañuy dem sax bu ñu daan dem seen délégation yi dañuy dem ba ñoo xamante ne dañ leen di tàccul mm-hmm. ñoo xam te dañuy ñëw pour tàccu leen manifester accueillir leen maanaam ñi leen war a accueillir bu ñu ñëw France Sénégal lañ leen di jël dugal leen ci avion yi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ne ambassade bi nga xam ci am nañu ko France am nañu ko Paris am na suite boo xam te ni c'est réservé au président mu ne foofu lay logé. Mhm. maanaam mu ngi France mais Sénégal la nekk parce que biir ambassade bu Sénégal biir France tey jii nii bu la autorité française bëggoon a jàpp tey bëgg la teg loxo soo duggee ci biir ambassade boobu raw nga parce que nekkatoo France yaa ngi Sénégal donc loolu en terme de diplomatie noonu la doxee mu ne moom mu ngi biir mu ngi mu donte mu ngi ci suufu France mais biir Sénégal lay fanaan mu dem fanaan ci fi nga xam te moom moo di ambassade di dajee ak ay ganam foofu noonu donc ñu koy woon euh, ñi nga xam ci ñoom lañ jàkkaarloo mu nekk France wala mu nekk yeneen réew que ñun ñi nga xam ci ñun la ñu dénk nguur mënu leen la ñu xoqatal ci leen bu fekkente ne alal ñu leen ñu ger parce que loolu euh, yi fekkul suñu bët mënoon nañu dem loger auto cinq étoiles mais fii la ñu ñëw fanaan fii la ñu ñëw loger ak saafanto ak ñi xam ci ñoom ñoo di suñu waa askan nekk Sénégal kon mënuñu leen a tey euh, piège yi nga xam te ñu ngi koy tendre yenn dirigeant africain nga xëy ñëw ñu indil la indil la benn mallette euh, defal la ay promesse ak yooyu noonu loo bëgg ñu signer la ko ak yooyu noonu donc sur ce côté tey mënuñu fa jaar ñi xam te ñoom ñooy suñu autorité yu bees si rawatina le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc loolu noonu mu nekk loo xam te aussi dañ ko ci gàcce ngaalaamaat mm-hmm. donc loolu noonu c'est des gestes yoo xamante ne yu bëree bëri la ñoom teg ko di wane ni kon réewu Sénégal bi nga xam te moom la ñu am jamono jëlee ci la ñu nekk fi mu toll nii ak réew bi nga xam te moom moo fi nekkoon yaa quatre mois wala yaa trois mois ci ginnaaw bokkul jéego ni nga xam te moom lañ daan doxale ak ni ñu fas yéene di doxale fi mu toll nii bokkatul lawoon woon ni na tey beneen xaal la ñu jël dañu jóg ngir moomaat suñu bopp dañu jóg ngir fexe ba Sénégal gi nga xam te moom lañ leen ñoom njiit yooyu noonu mu nekk Sénégal boo xam ne bokkatul ak Sénégal bi ñu fi fekkoon donc mu nekk ci sobriété maanaam ñu def ay mbir yoo xamante ni dafay grandiose di yàq alalu askan bi di ko pasar pasaree ci loo xamante ni mën na ñàkk dootul nekk loo xamante ni aussi dañuy jël euh, réew nit koo xamante ni ñeneen ñoo ko fal su bokkul ci ñun ñu jël ko def ko bàyyi wala ñu jël ko def ko pare lépp loo xamante dañ koy def dañ koy tàggu wala moom moo ñuy dicté ñuy def di bàyyi donc loolu yëpp c'est des yoo xamante ni mën nañ ne ci fan yii suñuy gouvernant pose nañu ko li nga xam ni moom lay signifier rek mooy le Sénégal mu ngi jaar ci beneen yoon boo xamante ni mu ngi tiré vers la souveraineté te pour mu antu nag le président le premier ministre Ousmane Sonko wax na ko bi xam xamante dem na Grand Théâtre mu ne loolu pour mu antu faaw ñi nga xamante ñoom ñoo di peuple bi ñu ànd ci ak ñoom te bu ñu attaqué le franc CFA attaqué li nga xam te mooy contrat yi nga xam te signé nañ ko ak yenn entreprise française yi wala yeneen entreprise étrangère yi question yooyu yëpp bu ñu ko attaqué mooy ñooñu duñu leen ci bàyyi dinañu jóg jàkkaarloo ak ñoom mais pour ñoom ñu mën a am ndam ci ñoom nag mooy day fekk ni le peuple sénégalais aussi dafay jóg rangé wu ci ginnaaw si dirigeants yi nga xam te ñoom la ñu tànn je pense que kon le peuple doit comprendre que ni su combat vers la souveraineté ne doit pas être combat boo xam ne dañ koy bàyyee su autorité kese mais c'est tout le peuple sénégalais ñoom ñëpp ñu war a jóg bokk ci combat boobu ba nga xam te ni danañu ko réussir ñu tegaat Sénégal ci yoon bi nga xam te moom lañ ko bëgg a teg mhm. bu ñu jógee ci wàllu souveraineté am na ci loo xam ne bëggoon naa ko laaj ci ay question jëmee ci yow Ismaïla Seck ak sa xam-xam ak réew France bi nga nekk nga xam ambassade bu Sénégal bu ambassade bu Sénégal baax a baax ak yeneen yi fay daw mais lenn li nga xam ne moom la ñu gis ci wàllum sabotage tukkee ci ambassade bi ak yeneen ak yeneen loolu nuñ ko mën a décrire euh, mais li nga wax rek sabotage parce que dama dama waxtaan te sànq nii ak benn responsable boo xam ne dafa yor benn association. Mm-hmm. association boobu noonu ay doomu sénégalais ñoo ci nekk. bokk na ci association du ma la euh, association bi nga xam ne ci sur la diaspora waxuma la communauté sénégalaise rek de mais communauté diaspora bi yëpp association bi ci gën a dynamique bi ci gën a organisé association boobu la parce que ça regroupe des milliers de membres et des membres yoo xamante ni naam ay associé ay sénégalais ñoo ko sos. mais ay communauté yëpp nga ciy fekk boo ci demee ci biir association boobu noonu ñoom ñu ngi doon organiser benn festival boo xamante ne c'est un festival annuel ñu ngi ko am ci benn ville boo xam xamante moom la ñu wax Sonu à Bordeaux festival boobu dañu dem ba euh, ville bi daf ko reconnaître te dañu dem ba ñi nga xam te ñoom ñooy les précurseurs de ce festival dañu am sax ay tour yoo xam dañu ko tuddee ay tuddee leen ay mbett mu nekk liggéey boo xam te ne ñu ngi koy def depuis des années festival boobu mu ngi waroon a am tey jii nii pour des raisons météorologiques moo tax ñu repousser ko parce que tey dafa yendoo taw mais ren tey moo waroon nekk vingt troisième édition bi ay nit ñoo xamante li ñuy def en terme de culture seen contribution ci France fii nii kenn mënul wax ni mu toll bi nga xamante ni le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi recevoir les responsables d'association à l'ambassade euh, kooku mu ne ma ki nga xamante moom moo di ambassade moom moo doon distribuer la parole ñi nga xamante ñoo nekk ay xaritam ñoo xamante ne ni ay association yu ñàkk fayda yoo xamante amul benn euh, plus-value ci ñi nga xamante moom moo nekk que mu soit économie wala culture amuñu ko ñooñu la jox ay parole parce que ñoom ay copinage moo nekk ci biir wala ñooñu c'est des gens yoo xamante reconnaître nañ leen ci régime bi nga xamante moo fi jóge lañ bokk mais ñi nga dañu nekk ay nit yoo xam dañuy liggéey yàlla askan am ay organisation yoo xam te c'est très bien structuré reconnu par l'état français reconnu par les autorités ba pare ñu amal njariñ état français amal njëriñ état ñooñu dañ leen a boot di kenn joxu leen la parole parce que ñooñu dañ nekk xam ne peut-être politique politicienne yëkkatiwu leen dañu am ay objectifs yu clair yu précis yoo xamante ni ci la ñuy ko wàcc donc mu nekk un sabotage boo xamante ni loolu rek ko firndeel ñooñu joxuñu leen parole kenn joxu leen parole beneen bi mooy wax naa ko ci benn intervention fële fekk defaruñu li nga xamante ni moom mooy la diplomatie sénégalaise les la représentation diplomatique sabotage yu mel nii bii nii premier pas bi la rek dina am yeneen ak yeneen yoo xam ne daf ciy topp parce que ñi fi nekk nguur gi fi jógee moo leen fi teg. Mhm. te nguur gi fi jógee ku nekk xam na nan la doon fale ci ambassade yi ak ci consulat yi da ngay muye la mayo mën a mobiliser bokk ci ñi nga xam te tey jii ay benn wii wii lañ lépp loo xam te bëgg nañ ko nga defal leen ko ay récompense politique moom moo leen bàyyi foofu noonu mais la plupart ci ñoom duñu ay diplomate xamuñu diplomatie jànguñu diplomatie mosuñu ci yëngatu dañu muye